léegi néeg bu nekk néeg bu njëkk bi fanweeri xale ak benn moo nekk kenn ku nekk ñaari mug waaw ñaareelu néeg bi fanweer ak benn muy ñeent fukk ak ñaar néeg bi ak ñett fanweer ñaar muy juróom benn fukk ak ñeent ki néeg fukkeelu néeg bi ak ñeent néeg bi ak ñeent muy fanweer ak fukk ak ñeent ci ay mug néeg euh, fukkeelu juróomi néeg bi muy ñaar fukki nit ak juróom-ñeent muy juróom fukk ak juróom-ñetti mugg fukkeelu néeg bi ak juróom-benn muy fanweeri mugg fanweeri gone muy juróom-benn fukk mugg ci ay mugg ak néeg bi muy fanweer ak benn di ñeent ak ñaar loolu mooy fukki néeg ak juróom-ñett néeg bu ci nekk loolu mooy ciy gone limu mugg bi moo nekk noonu li ñu ko lépp lépp li ñu ko boole mooy junni ak téeméer ak fanweer ak juróom-benn mukk ci ñu góor yi yu jigéen yi lañ ci ñaari gone la ñu ñeenti mugg ñi nga xam dañoo am taxawaayu un mètre vingt mugg ñetti gone mu juróom mugg ñi nga xam si ne un mètre seize la ñeenti gone muy juróom-ñetti mugg ñi nga xam ne un mètre mooy seen taxawaay ñaari gone muy ñeenti mbubb ñu nga xam si ne seen taxawaay quatre-vingt-dix la muy ñaar fukk ak benn ci gone di ñeent fukk ak ñaar ci mbubb ñi nga xam si ne seen taxawaay bi longueur bi cent la fukki gone lañu ak juróom-ñett muy fanweer ak juróom-benn ci ay mbubb suñ ko boolee muy ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñetti mbubb buñ boolee yu góor ñi ak yu jigéen la moom moo ñuy jox junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñett ak juróom-ñeent mbubb turu sëriñ bi dañuy jaarale nuyoo ci sa loxo nga jot li ko mbooloo mi muy nuyoo ak cant ak ngërëm ñu bàyyi ko ci sëriñ bi jaar ci sëriñ Ahmadu ñu jot li yooyu wax ne ñu leen di sant te leen gërëm di leen ñaanal sin sin bëgg ak sin yeen ci liggéey bu mëna dox sëriñ bi fekk leen tey ndimbal taw fi ngeen def ak mu kaw seen jox di leen yëgal ne xolam sedd na bu baax te xelam dal te yaakaaram itam gën naa doon ndax seen taxawaay ci liggéey bi fii ak engagement yi nga xam ne jël ngi ñu wax ne mi ngi fàttaliku ne ba ñu yoon bu njëkk ba dañ ko waxoon ne ko li feeg daayira bi mi ngi fi daara ji nekk fi di soxla ay ñaw lépp lu ñu soxla ci ay ñaw daayira bi noppi na ngir taxawee loolu nag ñu ngi koy jàpp ba tey te waxtu wu nekk itam yen a ko firndeel ndax yoon yi ñu ci jaaragum yëpp bu ci ne da koy def dafin woo xam ne day rafet ba kawe jot kon nag ñu ngi ciy sant bu baax di ñaan sëriñ bi nangu lépp defal leen ci tawfiq am ñu may jox day kawe seen lii nag euh, sëriñ bi daf ci daf ci daf koo yitteel daf ciy lool yoon wu njëkk ba ak bu ñaareel bi ak bii ku ci nekk li ñuy jënd ci ay tuise ay millions bari lay doon te sëñ bi moo koy jënd eh, ngir rek taxawoo ko gone yi nga xam ñoo nekk fii eh, nga xam ne moom lañu jënd nii eh, njëg gi romb na ñeent millions teg te te taxawoo ko gone yi nekk fii ba seen seen waajtaay bu ñuy toog di jàng melokaan wa doon melokaan wu rafet woo xam ne mën naa dem fu ne ku ne mën na koo gis mm-hmm. te loolu itam alhamdulilah rabbil alamin la ko defoon ci yoo ko jiitu woo mm-hmm. kon nag ngeen yëg ne yéen a ngi ci sonn bu baax yéen a ngi ciy def yitte waaye li def ci yitte ak coono rek gis na ko te yëg na te xolam sedd na ci tamit ngeen ciy ñaanal it sant bu baax a baax ñaan suñu borom euh, ñu yàgg ànd liggéey bi yàgg cee am ngërëmu sëriñ bi saa ko defee rek juruñu ngërëmu sëriñ bi waaye li nga xam ne ñun buñ ko xasee am rek mel na am nañ def waaw kaddu yi daal ni ma ko sëriñ bi waxee woon xam naa ni mënu ma ko jottee noonu waaye nag kaddu yi cant la ak ngërëm ak i ñaan yu bàyyi ko ci sëriñ ba jaar si ci moom ngir mu jottali leen yàlla daa dogal ñi wooy wooy xarala yi ñu féetale ko nekk mooy xarala yi yaa leen féetee moo mooy commission bi nga xam artisanat artisanat yi moom mi moo ko jiitu ba noppi bokk ci artisan yi maire yi mu xam ne lii ñuy def ay xare yi ñoo koy def moo ko war a jëmmal moo ko war a teewal ba lu ci war commune bu ëllëgee mu mën ko fas moo mën ko soññi mën ko sant loolu moo ko tax a teew <laughs> te liggéey bi ñor ko lool mm-hmm. moo tax ma bu ñu koy jébbali danaa teew loolu nga ma waxoon moo tax ma ma àndal loolu mm-hmm. ginnaaw loolu nag ñun nekkee ni ñun daanaka mm-hmm. dañuy jàpp ni ñun ñun lañ ko jàppale rek parce que ñu nag jàpp nekk ñu leen taalibe yi bàyyi faal di alal yi seen tubaab te fu ñu mën di nekk seen tubaab ko nekkal loolu mooy lenn wéy ci réewu seen tubaab rek mën na fa lii nag jàpp nañ sax ñun la war loolu ndax lépp nit defal seen tubaab rek ñun jàpp nañ a def leen baax taxawaay bi ñu ci taxaw ndax lii njëkkee wuñ ko tey euh, waxtu wu ne ci lañ dëkk ci euh, njiitum mbay saar mii di jàmbaar lool tabax ñu fexe bañ tabax àll bu yaatoo yaatoo yaatoo def ko machine yu bare bari la ca war te ñu muñ ci lan lu liggéey seen tubaab lépp lu seen bëgg te mu aju seen métier ñu fas ko yéene defal ko seen bëggee. Hmm. lool ñu nga leen féetale leen waaw ñoom mën naa jàpp ne ñoom ay ahlu xidma ñu ahlu xidma waaw te loolu loolu la. Hmm. waaw may ñaan nga ma ci. Hmm. te yaakaar ji ñu am ci man. rek euh, ñu am ci lu koy seen bopp. waaw si barke Maam ak si barke kilifa barab boobee. di sama kilifa feneen itam. waaw waaye lii dama ko mënoon a ñàkk a wax rek. Mbacke suñu wax tëbb na sa digg seen tànk kon nag xëy na taw feex la rek ci kaw ba kenn ku nekk di jaaxle naan fan la ñuy liggéeyal sëñ bi ñu wutal leen waar wu toll nii ca aw waar gënu koo rëy ci toolub sëñ bi ndax mooy waar yi nga xam ne ni moom moo gën a ñor sëñ bi ci lépp kon nag loolu moom wax dëgg yàlla buñ dénkee lépp suñu Ahmadu ci ak sellam ak taxawaay ak yitteem tax ñu boole leen ak moom mu jàkkaarloo yéen bi loolu doy na cant yàlla yàlla ngeen seen bi gàttandul boppam te seytaani bañ ci am yoon benn ndox bañ ci am yoon ngeen àgg te dara bañ leen teex loolu rek leen ñaanal ci barke sëriñ bi xam nañ ne eh, ni koy sëñ waxee wane ne maanaam liñ ci jënd diis na lool wante ñaw moo gën a seer tiis ñaw moo gën a seer tiis kon nag loolu ngeen toggoo nag ba def ko ak defin wu sell wi ba nga xam ne nii daanaka kenn ku ci nekk la ngeen koy am du cëkk ci moom ce dana jot na mu war a jotee loolu alhamdulilah kon yàlla na sëriñ bi gàttan bi boppam rek te ngeen daje ca ngërëm bi rek ba gën a mën a jekku ndigal ni saa su bi barke sëriñ bu baax yàgg sëriñ bu ñu ñaan leen suñu jëwriñ ji ci sàkku ngeen ñaanalal ma mm-hmm. ko na ma la ko waxee woon keroog bu ñëwee di laaj sa bis bi nga ne altine baax na kon loolu la ñaanal ma ko sama borom yàggal ko suñu kat di sant nag bàyyi seen jëm nga bu mu ci jotee ci loxoom la jaar ndax sàkk am na liggéey boo xee yéen liggéey sëñ Tuubaa yéen ñor mu ñëw ba nga ko waxee lan lay tàmbalee ci benn mos foofu si yittee sëñ bi yam mu ne ko joxee danañ ko liggéey ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuuba kon ñoo ngi sàpp nga ñaanal lañ leen leen sama borom yàggal leen fi ci barke ndax ni ma ko waxoon ci suba section yooyu daayira bi ñaar fukki section la ak juróom-ñett am na yoo xam ne ñi ngi ba Lambaay sëñ Seex Mbow jiite ko am na ko jógee Ndindi am na ñu nekk Fuuta am ñu nekk Kolobaan ak ñu nekk ci dëkk bi kenn ku ne jëwrinam ñëw na ndax liggéey bañ ko déggee kenn ku ne da koo def muy sa yitte bi mu dikkee li ko taxa li tax moom fan yii sax daa fekk boobu ñu doon waajal xel ko waaye ban demee ba xel ko bu ñëw dañ ko séddee ba yàlla dogal ba mu demee ci marché bi kenn ku ne da koo def ni ñaw boo xam ne dañ la ci fay adduna ak ci biiram mm-hmm. te it moom dañ ñoo fay adduna ak li ci biir ndax liggéey sëñ Tuubaa mm-hmm. ndax liggéey sëñ Tuubaa ci ngay am sa adduna am sa mm-hmm. comme ni ko Baye Mbaye waxee léegi sëñ bi di fekk daara ji doon daa daara daayira bi doon daayira sunu sañoon ñëw fi dikk dama ñu ko jox ñu liggéey ko ngir yàlla gën a sëñ li ñuy sàkku nag mooy nga ñaanool sa borom may ñu wér ak wërsëg woo xayante bi saa bu liggéey bu dikkatee danañ ko liggéey ci nan ko sëñ bi bëggee ci loo xam du am diir bii mu am bu noppee ñu am ci ngërëmu sëñ Tuubaa ndax liggéey sëñ Tuubaa képp lañ ciy sàkku noo ngi ñaan nag yow ñii sëñ bi jaar liggéey sa loxo sëñ Amadou Ba diw yàlla la fi yàlla si barke sëñ Fall ak ñu ko àndal ñëpp barke sëñ Touba daara ji itam képp ku fi jànge yàlla sa borom dëbb kattan dëbb la xam-xam boo xees mbokk ci xam-xam mag ñu njëkk ñi ci barke sëñ Touba te nga jariñoo ko ak say waajur ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di jégalu ci kàddu yi nit ñi la da ngeen ñu wute danoo tàmbali barab boo xam ne ah, liggéey boobu bu fekkonte ne fukk la juróom benn yi defal nañu ko def nañu ko ñeent ke def loolu nii ñaanal ñu ñu mën a jàppale ci loo xam ne dana tax mu mën a daal di àgg rek loolu itam sas nañu ko sëñ Fall Fall la woon ñu nga defee moo tax moom itam sax ci dëkk yi loolu nag su ko defee bu boobaa ci benn barab lañ koy daggi dagg doon benn dagg yi ko doon benn ñawin ñuloo ko wuute du ci am ndax kenn ku ne na nga mën a ngay ñaan bu boobaa nag benn benn benn orientation ci la Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh barakatu ngi nuyu baax di len siaré di len bal wax di len bal wax di ñaan sëñ muntaka Basiru mi sa borom yagal ko lool nuyu sëñ Fallou Fall mbawor mi di ko bu baax doole yi maam Seera Fall di ñaan sa borom yàggal ko fi te ndomb ak tànk yi ñu ko dénk yàlla na ko sa borom gën a jëme këram ci barke maam Seera Fall dañuy leeral tuuti rek ci ñaw yi nga xam dañ ko doon ñawal Sëñ Muntaxa muy ñawi université ba yàlla dogal na ñaw nañ ko ba ñaw yi yeg xëy nañ ci suba dem doon ko yóbbu ànd ak sëñ Amadou Ba diw ñaw yi nag li ko waral mooy eh, Serigne Saliou Mbacke ci boppam dañoo sosoon ab daari ci jamono Sëñ Abdou Lahad Sëñ Saliou waxoon ne daayira bi da bëgg bokk ñu ko muy sunu jëwriñ bi yàlla dogalee ñu bind ko muy suñu jëwriñ ñawi dongay xel comme yëpp it yàlla dogal na lañ ko daan ñaw ñaw itam bi université bi ubbee su ñëw bët yi woote daan ne ñaw yi kat daa bëggoon ñu ñaw ko woo Baye Mbaye Sarr ak jëwriñ yi nga xam ne ñoom la àndal Baye Mbaye Sarr xamal ko ne ko boo demee neen sëñ Muntaxa li tàmbalee ci benn ñaw ba fu yitteem yem bu nu ko joxee danañ ko ñëw ngir yàlla jëmmi sëñ Tuubaa bu yàlla dogalee mu njëkk ñu koo jox kere bañ ko ubbi mu njëkk ba ñu ñaw ñawee ko téeméer yu jigéen ak euh, juróom-benn téeméer yu juróom-ñett góor ak juróom-benn téeméer yu jigéen ba yàlla dogal ren gisam mu jëlaat ñëw yi doon ko ñawlu waat ñu dellu ko ñëwaat ba mu yegg dañ ca ñëw nag yaakaar naa ne lim ba war naa toll ci junni ak ñeent téeméer yu toftal yu góor ak yu jigéen ànd ak Baye Mbaye Sarr suñu jëwriñ ak Baye Sini Dieng délégué def marché ak sëñ Fallou Fall mi nga xam ne moom moo yore wàllu lépp lu jëm ci wàllu asamaar yi nga xam ne ñooy yore wàllu métier yi ma ànd ak moom àndin bu rafet nag ñu doon jébbal ñaw yi sëñ Muntaxa yi sëñ Amadou Badiou ba noppee ko daan dajale bu at mi matee ñu dellu ko xobaat di ko jébbalaat sëñ Muntaxa ñu àndaat ak sëñ Fallou Fall ak Baye Mbaye Sarr ak jëwri yëpp ak waa Lambaye ak waa Pekes ñëpp fukki section ñaar fukki section juróom-ñett ak Colobane Saloum bi ñu àndee ñëw ànd ak moom ci taxawaay sëñ Fallou Fall ñu doon ko jébbalaat addee ji sëñ Muntaxa Basiru fii ci Daaru Minam kon liggéey bi noonu rek la demee sëñ Fallou ñoo ngi lay sant bu baax nga xam ne nag ni ko Baye Mbaye Sarr waxe ay eh, way xarala lañ yàlla dogal amoon nañ suñu màkkaan ñaw yi nag dañoo bëgg suñu màkkaan moomee def nañ fa daanaka wala lu toll ci fanweer million ak nangam dañoo bëggoon fanweer fanweer million ak juróom benn dañu ko bëggoon a ba nga xam ne liggéey bu su dikkatee ñu dajale machine yëpp foofa àndandoo dagg ko fa ñawandoo ko fa muy nekk benn wirgil loolu na ñoo ngi sàkku ci waay teewaay nga dimbale ñu si ngir yàlla ak dimbale ak ndomb tànk gi ñu jox lii fi nga bëgg a eggale yàlla na ko sëñ Tuubaa jëmale ba nga eggale ko fa barke sëñ Tuubaa rafetlu nag sa taxawaay tey sant nañ bu baax a baax nag loolu ñuy sàkku nag jiitu kenn ku la ak ak sëñ Abdou Lahad Ka maire kon jërëjëf Fall loolu loolu moom dañ si sawar loolu ndax euh, maa ngi koy wax sëñ euh, a yem rek moom liggéey moom liggéey bi nga xam ne ma ngay am ci jumaa ja wala ci armeel wala ci dëkk bi moom liggéey euh, bi ñooyam kon na maire bi taxawee ca yooyee moom itam jaadu lu mu taxawee ci nii lii ngeen ngeen di jëf jëfal seen bopp euh, génn seen alal seen seen ñax ak seen xam-xam ak seen ak seen jot di bàyyi seen liggéey di ko ci def mu war a gorle ci maire bi mu jàppale leen ci ba liggéey bi mën a àgg ci jàmm incha allah moom dinaa doon seen ndaw naa ci waxtaan ak moom ndax moom xam na euh, njëriñu artisan ndax maire Touba yàgg na ba mu sosoo léegi waaye daaw la ci euh, euh, commission artisanat door a am te la ko waral mooy dem na ba xam ni artisanat moom dong moo mën a suqali dëkk bi waaw kon nag da leen a war a jàppale ci seen liggéey bopp rek bu ma laal nag liggéey boo xam ne nag mbooloo taalibe bi yëpp la war mu liggéey seen Touba naa ci waxtaan ak moom te incha allahu taala naa fexe ba ñu dugal ndimbal lu am solo ci budget bii nga xam ne dana ñëw euh, ci 2024 ñu boole ko ci bu ko defee jàppale leen ci loolu xam ni kon ñu jàppale ci. jërëjëf Fall jërëjëf fas yéene baax a baax. leen sant bu baax nag yéen leen leen ñaanal yàlla fay leen lu koy jox ci liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey. leen sant nag ci boole bi ngeen ci boole ndax mënoon ngeen ko def te du ma ci du ma ko yëg te du ngeen wàññi dara. ndax liggéeyam sëñ Tuubaa la yëpp bi ngeen am ba boole ma ci man amu seen pay dañ sant bu baax sa sant seen pay ñi nga xam ne wax dëgg xam naa ni lépp accès fii pasteefam la ndax ku la jiitu euh, man la ci liggéey ba ah yaakaar naa bu la soññee da nga da nga gën a sawar waaw te loolu euh, noonu lay noonu la yàgg a doxee ndax man dama koy xam booba day jàng ñëw ma jógee dem marché wax seen abdoulaye jaar fa ay añe seen ndaw man yàgg naa ak ak ak taalibe laa ko xam waaw te it yaakaar naa ne bu ngeen ko ci moom bu ngeen ko topp ba ba ak si fii kon moom ñu ngi koy sant bu baax euh, doon sant yéen ñëpp di leen yàlla euh, mottali yéen yëpp rek te ñu yàgg koo def yàggee ñëw fii ci sëñ Mountakha di ko fekk wër ak Cheikh Ofa liñ ci dolli daal mooy bis ni ki tey daal tàllal nañ la loxo lépp loo nekk ñun ñi nga xam ne ñuy daayira bii Baye Mbaye Sarr jiite muy ñawkat yi nekk Touba tàllal nañ la loxo noonu si ginnaaw lépp loo xayante bii maire bi nga koy santaane muy wàll wun man muy loo xay dana jaar sa loxo tàllal nañ la jox ànd dafa ñeen ko ànd ak yéen waaw noonu lay sant ñaan nag liggéey bi ñu la dégg yàlla na ko yeggale jërëjëf Fall di ñaanal nag Baye Mbaye Sarr mi sa borom yàggal ko ndax na ma waxee waaw la ma la ma wax sëñ Amadou Badi dama ne suñu waajur yéen fekkoon suñu waajur ñu wa jur mhm. dafa nekk ak ñun xeecee marché ba ñuy liggéey la ñuy liggéey mhm. digal yam ñuy digal mhm. su fekkoon ne ma nga faa nekk li li ñuy digal moom munta weesu loolu nekk leen ci lu baax bàyyi leen lu bon fu ñuy liggéey liggéey sëñ tam mu jël ko indi ko ànd koog moom kon yàlla na ko sa borom yàgg barke sëñ te di ko seere ngir yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa rek xam ne ndox na nu mu war a doxe ni kilifa di doxe doxe na noonu màggal gi gàmmu gi paase ñëpp a nelaw ba mu def ko ngoroma ko téye ngoroma ko téye ba nelawul ba bët set mooy xool ko di ko xool di ko xool di ko xool ba mu yàgg ma ne bàyyi ci bàyyi mbay saar nag liñ doon wax ci moom am na ndax mën na kilifa sëkk ndax njaboot gépp a ngi nelaw mu téye kurusam di ñaan yal na la yàlla jàpp yal na nga gudd fan. yal na nga am maanaam am na njëriñu sëñ Touba daal am na njëriñu sëñ Touba yal loolu laa bëggoon a wax yéene naa ko rek yal na yàlla jàmmale ñu ñëpp ku bokk ci daayira ku nekk nag maa ngi lay ñaanal sëñ Mbaye maa ngi lay ñaanal. seenu nangoo topp ak seenu nangoo dégg ndigal jëfe ko moo tax nu mën a ànd ak yéen doxe noonu ndax li ñuy def du man dong yéen ay jëf ma tax ko mën a soññee lii mu sëñ bi jox itam seenu nangu koo jëf moo tax muy ko teg sama loxo kon nag yal na ànd bi yàgg ca bennoo ga yàgg ca xel yëpp gindiku ci liggéey xam ne liggéeyal